ndegam sëriñ abdulahat moo wuute ak melokaan wa mbakke lii di joote te yàlla njeeg borom belal moo làqu ku yabu waaj te xam ni dun bee yàqu guddi ga seex abdu fanaan feetu baa bawoo belal mooy ca guddi dugoo baa jërëjëf mbokk yi ñu ngi am mbégte ànd ak yéen eh, ci édition spéciale eh, sëriñ abdul ahad mbakke xam ngeen nag euh, màggal gi euh, ñun ko baaxoo di def rek ci mboolem ci kër njabootam gi yëpp tey nag ñu ngi fii ci Touba Ndamatu ci kër Serigne Mourtada Mbacke moom euh, ñoom lañu seet si nag fekk fi nag ñenn ci ay wëllëreem ci ay taalibeem ñu fas yéene fii yëkkati ay kàddu jëmale ko ci bés boobu noonu nga xam ne bëgg nañ képp koo xam ne ñu ngi ciy ñëwee ak noo ko fas yéene dundee ci bés bi waaye tamit bu ñu demee ak yóbbal bu ñu fa war a jëlee. mbokki jullit yi mbokki taalib yi ñu ngi leen di ci turu sëriñ Mourtala Mbacké Abdou moom sëriñ Abdou Lahad ñu ngi ñëw fii tey ci këram ñu joxoon ndigal boole nu ak taalibeem yi ñu ñëw nag fii ah, li ñu ciy wax rek mooy màggaluk Cheikh Abdou Lahad Mbacké màggaluk Cheikh Abdou Lahad nag naka jekk nii lañ ko daan defee fu fi fu fi njabootu sëriñ Abdou Lahad nekk ñu ñëw di ko màggal di ko dundal Cheikh Abdou Lahad nag wax ci moom jafe na jafewut ndax kenn ku nekk defal na la loo xam ni mënoo koo defal sa bopp kenn ku nekk defal na la loo xam ne si mënoo ko defal sa bopp kenn ku nekk defal na la loo xam ne daal neexut a wax daal ci ñun ñu ñëpp kon nag ñoo ngi fas yéene toog fii tey ah, di ko naan lii sëñ bi nag daf ma waxoon rek naa ànd ak ñii rek ah, ngir wax ak ñoom wax ci bis bi magi taalibe yaa ngi nii sëñ bii moo di waa kër sëñ Moussa Fall Fatikan ku ñu yàgg xam ci sëñ laat Lahad yàgg ak moom lool lool lool collègue mu di ko doxal ba ci sëñ Mourtala mi yàgg ànd ak lool ba kii ko fi toogal tey di doomam ji moom it mu ñëw fii tey di ko màggal di ko ànd ak moom kon nag yàlla na leen yàlla fay yàlla na leen yàlla taxaw yàlla na leen yàlla dimbali ah ñoo ngi nii nag fii ci kër sëñ Mourtala ci ndaamaatu kër sëñ laat di nekk ci ndaamaatu kër sëñ Mourtala Abdoulaat waaw di di waajal màggal gi ndax màggal gi ginnaaw suba la waaye ñun tey lañ tàmbalee màggal waaw di leen leeral ne gi li ni ko sëñ bi daan defee la ma ci mas wax di man daf ma daa wax ne Ousseynou Seck ma ne ko am te loolu ñaar fukki at la yoo xam ne nee na ma de lépp lu ma fekk danaa ko ci def te lépp lu ma joxe danaa ko ci def te lool de la ma daan wax te ñaar fukki at yi ma xam ni wax na ma ko de ma ma ma xool ko noonu mu ko waxee noonu la koy defee kon nag yàlla nañu ko yàlla yeggaleel ci jàmm ak salaam Serigne Mountakha nag ñëpp xam ne ñu ko xam bari na ndax bala boo boo ko laajee waa Côte d'Ivoire wala waa bitim réew ndax yaakaar naa ne li mu liggéey fii liggéey na fii ci maamam loo xam ne lii liggéey na fi Serigne Mountakha loo xam ne ñëpp teg nañ ci bët liggéeyal na fi Cheikh Saliou mbaar ma la ca biir këram loo xam ne ñëpp teg nañ ci bët barabu jum barab bii nekk ci jàkkaarloog armel yi diggante armel yi ak jumaa yi nga xam ne moo doonoon barabu Serigne Touba moo doonoon kër Serigne Touba moo yëg moo ko yëkkati ba noonee mu mel te bu neexee yàlla dana mel ni li liggéeyam yi mu daan tàmbali dana ko yàggalee nu nu nu raw noona ci barke bi Xaadimu Rasuul kon nag kii toogit nag moom ah kóllëre la ci kër gi ndax moo sëñ bee bokk ndax ba waajuram sëñ Moustapha Fati Kan moo sëñ bi ñoo bokk nekk te nekk te belal ànd ak sëñ Abdoulaat di joor sëñ Abdoulaat lool sëñ Moustapha Fati Kan moom suñu sëñ Modou moom mii mu dippee dippeeku suñ Moodu Aminta ku nekk xam la ko moom itam nag na baayam jàppe woon di ko màggalandoo ak suñ ak suñ murtala at mu jot noona la koy def da ko yokk waaye waa ñu ngi ci dara lu baayam daan def benn def na ko ñaar kon nag ñoo ngi ñaan sama borom yeggale su yéeneem ci yoonu Serigne Touba bi suñu ab laat wi ak yoonu maam kër maam Cheikh Rafal ndax ñoom ni ñuy doxale kër maam Cheikh Rafal noonu la ñuy doxale kër suñu ab laat kon ñu jox sëñ sëñ Moodu Aminta moom moom sëñ Moussa Fatikan mu sànni ni ci kàddu te defal nu ñaan ñoo nii nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki taalibe yi fi teew yëpp di nuyu mboolem koo xam rek yaa ngi ci diaspora bi di nuyu jullit di nuy mbokki taalibe yëpp bàyyi nu kenn di ziar bu wér-wér Cheikh Mouhamadou Mourtada moom Serigne Abdoul Ahad Mbacké mi xam mooy sunu bunt ci kër Serigne Abdou Lahad ñu koy nuyu bu baax a baax ci turu Serigne Modou Aminta Fall xalifa Serigne Moustapha Fall Fatikan ci turam lañ koy nuyoo di ko ziar mooy sunu waajur Euh, euh, tamit ñu doon doom ci kër gi doon fi taalibe euh, loolu suñu borom dool ko muy jaxasoo goo xamante ni Cheikh Moustapha Fall Fatikan jaxasoo woon na ko waajuram Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ba bis bii muy def nga xam bisu bisu Sëñ Lat bii nga xam ndigal la ci am di ko màggal ci bis bële ca Mbacké Bawol nga xam daa bàyyi yitteem yëpp rek wax ne nag bis bii na ngeen ma ko fonkal bu baax boo leen ma gisee boo leen ma gisul na ngeen ko def seen yitte xam naa nag eh, jotaay bi eh, sunu borom moo ko dogal mu demee nii ndax yàlla dogal rek ñu bokk ci eh, sëñ bi yabal nu yit nii nii sëñ bi ah comme que télé bi egsi na fi te yàlla dogal nga egsi fi te bis bi ni mu koy dundale noonu nga koy dundale kon it eggal ba nga sànni si kàddu moom daal ñu ngi ñaanal bu baax a baax Cheikh Mouhamadou Mourtada mi nga xam mooy sunu buntu si kër Sëñ Laat sama borom sàmm ko aar ko ba mbooreem loo xamante ni naal naal la yu suñu yu suñu Laat tàmbali woon rek yàlla bu ci dara sooxee ci côtéem ñu koy ñaanal baax sa borom sàmm ko defal ko tawfeex ba yokk wér gi yokk man gi bu baax a baax euh, noonu daal nga xamante ni ni nga ko waxee rek ni ko mbokki taalibe yëpp wax jaxase woon ak ñun daan waajalee bés bi. Mhm. tam ciy baax nga nga nga mhm. waaw moom daal ñoom ñaar suñu saafal Fatikan ak Serigne Mourtada jaxasoo woon nañ jaxasoo goo xamante ni xam naa ni buñ toogee fii di si wax sax yaakaar naa ne duñ ci gaaw a jóge ndax euh, saa borom dogal na ni dama daan gis ñi bokk ñoom ñaar benn lal boo xam ñoo fay ne ñu bokk ko kon ñoom ñaar leen bokkoon euh, jàppante wuñu woon ay ay ay euh, mag rakk lañ jàppante seen bopp seen jëm yi ndax xam naa lañu doon fekkee jotaayu Sëñ Blaat ak jaxasoo ki daa yàgg ndax suñu soofal fatikaan ñi mu jaxasool ci njabootu Sëñ Blaat mën naa ni kenn ku ko ci xamul rek amul waaye nag ni mu ci melal Sëñ Murtala dajal léppam rek def ko Sëriñ Murtala loolu sama borom dogal léppam mboolem lu mu waroon a jaxasoo ñëpp rek daanaka euh, buntam yëpp rek ci kër Sëriñ Abdou Lahad la ko jël wekk ko ko euh, nga xam ni moom moo dox si diggam ak njabootu Sëriñ Abdou gi loolu sama borom dogaloon ci moom ba nga xamante ni waxtu wu nekk bisub Sëriñ Abdou Lahad bii muy def da daan jóge fii di ñëw ci Sëriñ Moustapha euh, ci bis ba fa mu koy defee nga xamante ni kon loolu xam nga ni dara gënu ko rëy ndax bis la boo xam ku ne doomu aadama day jóge fu di ñëw ci moom kon bu bu bu déplacé woo ñëw fekk sëñ Moustapha rek xam ne loolu ak yëg la ak it ak la tax mu def ko xam na ko muy lu seen ñaari waajur seqoon waaw lu ñu seqoon seq goo xamante ni sëñ Moustapha it doonoon koo xamante ni sëñ rek ko ñor waaw cëram ci sëñ Mour Moustapha Fall amul loo xamante ni sax jëfandikoo na ko waaw wanewut benn cëram ci sëñ Mour Moustapha moom lu mu doon wax rek sëñ Blaat loo koy wax lu muy wax ak yow sëñ Blaat la koy wax fi ne bari nañu bari ñoo xamante ni lu ñu xam sëñ Blaat moo tax ñu xam ko waaw tey jii am na ñoo xam ñi ngi màggal sëñ Blaat di sant Sëñ Abdu Lahat ba xam Sëñ Abdu Lahat ba am fit ñama cee wax Sëñ Mustafaa Fall Fatikan moo tax waaw kon kooku nag euh, lu ñuy wax si moom it xam naa ni comme ni ko suñu xaw si waxee rek ak ak ak euh, suñu Ousseynou Seck mi nga xam moom xam na diggante Sëñ Mustafaa Fall Fatikan bu baax ak Sëñ Murtala xam na ko bu baax a baax dara ëmp ko ci day ñaanal baax a baax rek sama borom euh, dolli leeram baax tànn si barkeem di ñaanal Sëñ Murtala mii nga xamante ni moom moo fi suñu bunt yàlla na ko sama borom sàmm defal ko tawfeex bu baax ba bisub Sëñ Abdou Lahad bii daal eh, eh, mboolem lu mu ci yéene rek yàlla bu ci dara soxe eh, ñun mbokk taalibe yi nen rek la mooy taalibe moom booy jëm ci sa kilifa nanga nga fas yéene sell bu baax a baax fas yéene sell te sellal te ñëwee ñëwaat woo xamante ni defar sa jikko bu baax te lépp loo yor muy xàddiyee joo xam daa ne ci yow boo ñëwee loo ca mën na ko def sëñ bi defal loo mën ak loo mënul ndax sëñ bi kenn mënta defa def bu defal ko lu ko jomb kon loolu na ko ñëpp maa si xam te xam ne lu waaye defit ci bisub Sëñ laat Lahad bi ndax Sëñ laat daal daa doon koo xamante ni euh, li gën a euh, li gën a jafe si doomu aadama li nga xam doomu aadama boo xamante nii rek am nga ko rek xas na xas xas na am ci yow rek euh, maanaam dañ dañ dañ daal di rafet njort ci yow bu baax muy defar sa jikko ak it ñeme dëgg ñeme dëgg bu baax a baax a baax a baax nga xam euh, nit ngay doon koo xamante ni dëgg rek moo lay ñor mooy doon sa yiite kon képp koo xamante ni da ngaa sopp Sëñ Abdou Lahad wala nga bëgg ko na nga doon nitu dëgg doon ko ñeme dëgg euh, tey dox si njub loolu rek la Sëñ Abdou Lahad moom doon digle loolu moo doon mission Sëñ Abdou kon képp koo xam da ngaa sopp Sëñ Abdou Lahad mbaa nga bëgg ko mbaa nga aju ci moom la na loolu doon sa yiite muy na nga jub na nga ñeme dëgg na ngay wax dëgg foo taxaw foo foo nekk rek na ngay wax dëgg loolu moo doon yite Sëñ Abdou Lahad ñun suñu soowal fatikan baat boobu da daan wax ne lu mu metti metti rek na mu wax dëgg loolu nag ci jotaay Sëñ Abdou Lahad la ko la ko miné moo tax nag mu mu yar na si ñun ñëpp kon dañuy sant bu baax a baax nag di sant suñu kilifa gi nga xam euh, moo fi suñu jëwrin si kër Cheikh Ibra euh, ñu ko ñaanal baax sama borom defal ko taw tawfeex ba bis bi nga xam waajuram da ko tàmbali woon euh, mu nekk di ko doxal yàlla na ko sama borom defal lu kawe njortam bu baax te mu ànd koog mbokki teel bi yëpp sama borom musal nu defal nu feex wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf mbokk yi seetaan 28 Pro TV kon ñu ngi woon kër Serigne Mourtada mu Serigne Abdou Lahad Mbacké fii ci Touba Ndamatu ci kër Serigne Abdou Lahad bi xaw su jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax a baax donte weñ naa loxoom saa su ne eh, waaye ci ndigalug sëñ bi rek mu daal ñu koy nangul sëñ Ousseynou Seck moom tamit ñu ngi koy jaajëf bu baax a baax Serigne eh, Modou Aminta ñoom itam ñu ngi lay ziar baax a baax eh, dañu incha allah daañu def kéem kàttan ba ñëw ci daara ja sëñ bi tamit ñu ngi lay sant bu baax a baax am nañu mbégte kon mu nekkoon nag seen site 28 Pro TV ci fii fii nag ci Touba Mbacke kër Serigne Mourtada Abdoul Ahad Bekkaay Ndiaye Sidi Diakhaté ñoo fi àndoon ñëw di ko baaxee askan wi jërë ngeen jëf